xam ne liggéey Serigne Sall li def ci day fan day wéral nit day yee doomu aadama day tax doo day yokk wërsëgu doomu aadama liggéey Serigne Sall ñu àndaloon Serigne Sall ñëpp na leen Serigne Sall Touré ñi ngi fi ñooñu seen xam nañ leen bu wér a wér xam nañ kuñ mel ni njàmbaaru Serigne Sall go Serigne Cheikh Béthio xam nañ ci ñu bëree bari mën nañ ci lim ñu bëree bëri te ñooñ kattan nga ñu ak seen i wilaaya dara may leen ko lu dul liggéey Serigne Sall Cheikh Béthio nee na ab waaw xamu ko lu dul nee lu nduroog waaw la xam ci alxuraan te li ko waral mooy li mu nduroog ab neuf moo tax mu xam ko kon xam nga ni kooku fa mu tegoon di liggéey Serigne Touba du xam-xam du dara waaye Serigne Saliou moo ñu toll Serigne Saliou ku ko liggéeyal da nga mel ni jant kenn dootu la làq ba ilaa yoomi déegi ñoo ngi nuyu yi jéggal boo xam ni ci ñun li tax ñuy ñuy wax jéggalu gi mooy dañoo bokk loo xam ne kenn ku ci nekk position bi ci nekk ak bi sa morom ñoo yem kon bu ñu dee yëkkatee kàddu rek kàddu yi dañ koy lalee ak jéggalu kon ñoo ngi leen di naat bu baax amaana jotaay bi buñ ko tegoon ci xel bu rafet nag danaan mën naa ni ndax kenn ku nekk xam nga li la fii waaye nag alxuraan sax dafa wax ni dee leen fàttali ndax fàttali dafay jariñ fàttale gi nag mooy fàttalante la kenn ku nekk position bi nga nekk valable na ngir fàttali keneen ak position bu mën a ndax loolu moom moom lañ sëñ Tuubaa boole kon loolu rek moo waral maa ngi toog ngànt ñëpp di leen jéggal su ko defee kàddu yi ma bëgg a yëkkati la du doon kàddu yi gërëm déedéet ndax kàddu yi gërëm li nga moom di ko deflu ñu defal la ko nga ciy gërëm loolu mooy yëll ci ngërëm moom sa kër di ko tabaxal di tabaxal la ko nga gërëm ndax euh, wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddis la alxuraan wax kon farata la ci ab jullit bu gëm yàlla buñ ko defalee loo xam ne yittee boppam la ak lu mën a doon mu sant gërëm te yoon saa dafa wax ni man lam yaskuru naasa laa yaskuru laaha mooy yoon saa daa wax ne nit bu njukkalul sax nit du njukkal yàlla kon yàlla buy defal nit sax dara jaaree ko ci nit dafa nit ki doo njukkal yàlla loolu mooy sunna waaye kon ñun dafa mel ne foofu duñ fa jaar ndax bu ñu njukkalee kenn baa ñu sant kenn baa ñu gërëm kenn day mel ne euh, dañoo am as tislaay benn place dem yooyu yëpp amul nag ñu sant waaye dañuy fàttalante ndax ñi fi teew ñëpp ay mbokku taalibe la li nag mooy bërëb bi ñu nekk tey ku ne xam na ni yàlla si mborom yàlla si mborom moo xam ni yéen ñi gëm yàlla xam leen ni suuf si nekk ci àdduna si yëpp sama suuf yaatu na waaye foo waaye dem rek mën nga fekk waaye nag ci suuf yooyu nekk ci àdduna dafa am suuf yàlla barkeel loolu bokk na ci ku ne xam tax ni yàlla saa salaam bi ko yàlla di wax ni subhaana si asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa ak la ca topp ah, ay bërëb la rek comme suuf yëpp nag waaye lu tax yàlla bi mu convoqué yàlla saa salaam mu jaarale ko fii jóge fa jaarale ko fee te suuf sépp di benn te ñu muy kite ci suuf yi jëm ci suñu borom kon suuf yi bokkut suuf taw nag tey seen suuf la si suuf si nga xamante ne yàlla suñu borom la sopp bu barkeel wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yashaa li am mooy yàlla nee na man maay xool ba mu neex ma ma jël lu ma neex ma may ku ko neex ku ne xam na ni Serigne Touba ko yàlla may la loolu ku ne xam na ko ñi gëmul yàlla sax dem nañ ba xam ne Serigne Touba phénomène la ci àdduna nam defe woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu doon koo xam ni yàlla moo ko may mu gën a mat nit ñi ci mboolem lu ñuy matee ba tax ci 23 ans ñaar fukki at ak ñett mu réglé ci àdduna ba ñëpp xam nañ ñi gëmul yàlla sax te ay nekk ay ay gëstukat xam na ni benn nit lañ mës a xam ci àdduna koo xam ni premièrement pauvre la woon amul ci ci ci am ami àdduna yi ñu xam beneen bi ci des mooy ñëw fekk fi ñaari waajuram amuloon kenn ku ko couvrir ci saa xanaa xanaa kay kane woon euh, man maa lay aar ci ay bi ñi man maa lay aar ci musibay ni ñi wala gàllankoori nit ñi muy wallaahu yaasimuka minan naas kon yenn saa moom ñëpp nangoon ni ci loolu mu def ci àdduna phénomène la ndax ku ne xam na ne àdduna am na kuréel bu ne am na ñoo xam ne daanaka adduna ñoo ko ñoo ko moom buñ ko tegee ci ay moyens xam na ni ay centaine de centaine d'années ñi ngi nekk ci adduna di woote ay mbir ba tey taxul ñu am liñ bëgg may na muy may te ko may ko soob la mayaatee Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf te liy woy ba ne lépp lu dafa dem Sëriñ Tuubaa te dootu fa jugaat ko moo ko wax de moo wax ne li Moustapha nawaytu maa ngi jënd suratul xarra wa inni ahmad dafa am loo xam ne da koo jëlee ci ci la di ko yeesal nit nag la ko yeesal mooy la mu moom am ci sañ-sañ ko jëloon jox koo xam ne moom am ci sañ-sañ sañu koo dem def ko couleur bu bleu wala couleur bu jaune ndax da ko moom ay téeméeri téeméeri cheikh am ñoo xamante ni Sëriñ Tuubaa ci benn saa lañ ko mu defal leen la muy def la muy def ci nga xam ne egg na ci wax ne la may def ci la may def ci doomu aadama ba ñun duñ fa jug su ma ko ci te te te julli ñaari rakk mu gën yomb ci man waaye loolu du dara li ëpp solo mooy lan ci déggee mooy Serigne Touba yàlla may na ko tawféexu yàlla may na ko ci sañ-sañam muy def ci nit lu ko soob di di nit lu ko soob loolu yàlla la soob bu defal ko kon ki nga xamante ne yàlla da koo xamal xëy xamal ko liy ñëw xamal ko li ñëw te lenn rek ñor ko mooy sauvé wu ñun suñu sauvé ñu ñëpp ñu sauvé rek moo ko ñor day feeñ ci léppam nag dañuy wax sax naa ne yaa maalikal mulki rek waaye déedéet xutba matal Moustapha ak kullu mafsalatin ak yooyu yëpp ne yaa maalikal mulki yaa man jàllal xawadin irham jami al wara sëriñ bi dañoo gën daa baax waaye teewul am na ci askan wu mu dañoo gën daa baax waaye teewul am na ci réew mu bokk daf ñoo gën daa baax waaye teewul am na ci diina ju daf ñoo gën daa baax waaye ci cerixatu muridiyya la bokk ndax mooy ki ko fonde waaye teewul bi muy ñaanal daa teg yooyu yëpp daal di yow suñu borom mbindeef yëpp yërëm leen kon loolu li mu teg ko yooyu yërmande yàlla moo ko fi bàyyi mooy sëriñ Saliou jamonoy Serigne Saliou Mbacké la ñu fekk ci yëf yi wallaahi azim jëriñ la loo xam ne jege na jege na lool li suñu borom wax ni kenn ku nekk maa la gën a jege sax kuumu xol sa xoxotalu xol bi nga xamante ni mooy servir sa yaram deret ba ngay mën a dund sax yàlla moo la gën a jege waaye yërmaande Serigne Saliou bu ñu jege te yàgg na koo juuju nag ndax wax kam wax bi adduna dëdd na ba ngay wéy waaxu taxoon ko jot daw yi taxoon ko jot te loo ko gën a dëtmal mu gën laa sori adduna xool leen bu baax lan la ñuy daw ñun ay milliards la daw wala ay millions wala six la ñuy daw wala pouvoir la ñuy daw ndax ñu ko am danoo noppalu kan ngeen gis mu am milliard daal di noppalu naa dematuma dara sama adduna kan ngeen ko gis kan ngeen gis mu ne am na entreprise bu mag noppalu naa adduna karang-karang la la xaddi xalq na insaanu fii kabat kenn mënu koo gindi yàlla nee na maa bind doomu aadama ci gërën gërën waa ji ñëwoon suñu tubaab nekk damaa kër dañ ko bindal kër mu bind kër mu ne ko bindaatal kër te ngar nag maas raagi ci mu bind sëñ ko liiral lii rek moo la koy may bëgg kër da ngay kër kër kenn mënu koo dim sëñ Mountakha wax na ko bu yàggul dara àdduna bon son baax son kon sonnal ci lu baax mu sa jariñ loolu mooy li am solo bu ko defee suñu cër ci sëriñ bi ñëpp ñu maasee xam ne suñu cër ci sëriñ bi mooy fekkee gi mu fekkee jamonoy sëriñ Touba duñ mën a wax mun ñoo fexe ba yàlla indilaat ñu sëriñ Touba ci kaw suuf danoo ñëw nag gëm suñu xol la daloon sahaaba yi ci yonent bi saa salaam dal ñu baax na ñu jiitu ñu jiitu woon ci ci màgg yi tedd yooyu moo ñu dalaan nag ëllëg seen yu la gën xëy koo xam ne doomam la ci daahir gis nañ ko kon bu nee xëy bu gële sax lii doolatu sax daanaka xëy daanaka lu leer la nee xëy bu lañ amoon yor seen i jaase di di di di xare daana dem ba bu yéefari ñëwee ci yenn saa salaam ci biir xare dagg seen i jaase ak seen i fett ak seen i nangam dañuy ñëw song ngir ñoom dañuy xëccoo dee ndax xam nañ ko dee taxe yaqin googu ñu amoon nag war nañ ko am ci Serigne Touba ndax Serigne Touba lañ am waaye ginnaaw jamono yi Serigne Saliou lan nag war nañoo ñun ñëpp nañu xam ne yaqin googu dañ ko am Serigne Saliou te xam ne ci jëf-jëf lañ koy lañ koy amee affaire du polémique politique du convaincre kenn ndax nit ki convaincre day fekk muy xaar nit ñi convaincre leen ñu tax mu topp seen ginnaaw waaye dañuy jëfandikoo léegi da Serigne Saliou waxoon te mooy yoonu leen maa ngi nii déedéet yoonu murid xamul loolu déedéet loolu ay triche la ay naxaate la ay théorie te yoonu murid amul dem leen maa ngi nii Serigne Saliou nee na bokkul ci yoonu murid yoonu murid ni muy doxee booy gars yi ñoo ngi nii ay ca leen ñu dem yow ma naan ay ca dem ci mbooloo ma ngay bokk rek bu mbooloo bi xeex da ngay xeex bu ñu xiif da ngay xiif bu ñuy nangam da ngay nangam kon loolu mooy lii kon la ma waxoon de fa lay mooy yëkkatil ay kàddu ngir sant wala gërëm ndax nit ki yëkkati kàddu ngir sant wala gërëm dañ koy defal yëfi boppam mu bëgg ci sant ndax alxuraan la farata la wa amma bi nihmati rabbika fa hadis kon loolu lu leer la waaye lii nag dee loo xam ne ñëpp ci yam lépp ñëpp la loo xamante ni ku ne sa sa yëf a nga ci waaye nag sa yëf lam ciy nekk def boo yaafusee doo ci jot ndax yoonu murit jëf ci jëfa ci maye te dooni sët wax naa ku léegi ci biir Serigne Touba dafa wax ni àlla ma ne laawul alim mimma yashaa'u min hulu jàngkat yi yëpp lu ñu bëri bëri xam-xam day dem ci téere jàng bu ñu jàng ba sa xel fees ba nga gëmee da ngay dem tëdd rek kon fa fa nga yem yow sa farlu fa mu yem sa xam-xam fa la yem sëñ Tuubaa rek dani xam-xamam amul frontière ndax li tax mooy li ko neex la ko yàlla di xamal su toogoon si gisakat yi ne yow mal xeam lan la yàlla xamal ko lépp su ne woon nit ñi nu toll yàlla xamal ko moo ko wax ko fa atub jinaan gën a nekk yéen ñëpp mokkal ngeen alla man ilaahu alimi ma yashaa minu ulum sëñ Tuubaa ko wax kon kooku kon xam na lépp kon bu jëlee li ab lépp daal ne Tuubaa bi Tuubaa li abdin muridin saadixin lahumu ak texe ñun ñëpp moom la ñu texe nag ñaar kese la shahadatu daare fii ci àdduna nga texe texe àdduna nag li koy may Sëñ Tuubaa ne ne mooy xol yu bëggante te loolu la ñu sëriñ bi defal yaa rabbi ij'alil muridina maha fii xisnikal hasini wa sablaj ma Sëñ Tuubaa kam Sëñ la ko yàlla may xol yu bëri yi kenn ku nekk yow sa morom bii moo la gën sa bopp kon damaa bëgg wax ne sëriñ bi moom mi xam loolu ba wax lépp bi muy lim daal ne texe googu ñeel na kan la mooy ki nga xamante ni moo ko mën a am téye nii moo xam ne yëfam na ko mën a doon ab jullit bu dëgg nee na ci ñetti mbir yi la ko mën a xamee ci moom sëñ Tuubaa kenn mënu ko yokk kenn mënu ko wàññi waaye sëriñ bi di mu amee xam ma ak fa mu toll comme ni ma ko misaalee ci diggante ak su borom ci xëy li mu ci xam weesu na fu muy jëlee mbir mu war a jiitu mu jëlee ko baa mu jël mbir mu war a mujjee jiital ko baa mu jël lu war nekk ci digg ba mu teg ko ca pegg ba sëriñ Tuubaa weesu na foofu kon buy lim ñett yi nga xamante ni moo mën a may murit gi la muy wut mu am jiital ci xitba gii ñu indi fii ci xel kom da am tax xel mu rafet na moo koy xam ndax bu dee bi xitbati waxul wa bi xobbit wa bi xayaat déedéet waxul ci liggéeyal ma ak jox ma addi waxul ak déedéet daf ni ci liggéeyal ma wala nga bëgg ma wala nga ma nga may jox addi ñett yooyu yëpp baax na waaye bi ci gën mooy liggéeyal Serigne ndax liggéeyal Serigne Touba dafa boole ñett yëpp bi xidmatin la wax dégg-dégg ko koy xam bi xidmatin addi kese mën na yóbbaale xidmatin déedéet ndax boo yoroon sa poos dara yaa xam fa ko jëlee kon boo ko joxee ndax mën naa yóbbaale xidma déedéet boo jëlee bëgg kese bëgg gi ndax mën naa yóbbaale addiya man mën naa laa bëgg ba jox la million te aw ma million déedéet waaye xidma boo ko jëlee day yóbbaale lépp ndax koo bëggul mënoo koo dafa naturel ci doomu aadama ku bëggoon a génne léegi deret ak li muy sori sori li muy for for su ko bëggee soo ko bëggee génne da nga koy génne léegi mbiri du waaye ñàkk nag fa mu nekk doomu aadama lu naturel kese moo ko mën a génne lan mooy génne ñàkk lu dul jëf jëf kese ko mën kon saa boo ñàkkee ka koy koo bëgg te bëgg nag boo xasee mën koo jox lépp te doo ko yëg kon loolu oh. borom xel mu borom xam rafet ba dégg ne Serigne Touba bu ne bi xitbati aw bin aw hadiyaati ba mu jiital moom ak matam weesu na muy jël lu mujjee di ko jiital comme la mu jiital daa ëpp lépp kon yàlla na bu ñu ñëwee ba xel kom ñu ñëw xam ni xel kom gii mucc gi mucc gi ni bëgg a mucc ndax xam ne tawfiq Serigne Touba daa waabale lépp am na ñoon ci wax na ko Mbacké ñun di ab daaral yoo xamante ni dañu liggéey Serigne Touba bëgg nga ñaanal liñ bëgg nga ñaanal nag mooy dañoo bëgg nga ñaanal ñu am xéewal yi ñu liggéeylee Serigne Touba bëgg nga ñaanal ñu am pas-pas sëñ bi daa sóonoo sóonu mooy nam daan faral di sóonoo wéeru ci loxo bi daa jug ndax da koo dara tuddal baal Cheikh Ibrahima Fall sëñ bi da koo fonkal ba su ko tuddee jooy moom sëñ Saliou mu daal di jug daan ne ko li mu mujjee wax de ci laa jëkke mooy pas-pas daan ne ko sàllaaw de lu waay lu waay am ci moo ko may daan ne ko suñu bàyyi Cheikh Ibrahima comme raw ci yoonu la la rawee daan ko pas-pas bi eggoon na ci bu ko sëñ bi ko joxal jo ma nangam fekk sëñ Tuubaa joxoñ lu fa fa lay moom demee wutoon xam na ni fii la bi doxal te buntu ba fale na waaye fa ko sëriñ ba doxal fa lay jaar ndax xam na ni wallaahu yanduru ni wal xalqu tatba'u nii fil bahri fil barri wal bahri zaada bilaa dara sëñ Tuubaa moo précisé bam daal di samay mbir amul dara lor lépp njëriñ moo tax sëñ Saal daa ko ndigal lor du ci bu fekkee dégg ngeen fay baax ci gàttal ci dëgg maa ngi jéggalu ci toogaay bu yàgg waaye jot na sëkk nag ñuy liggéey sëriñ Tuubaa war nañ cee profité war nañ cee na ndax nit ki li nga am te xamoo ko nga ñàkk ko te xam kaa gën lu tax mooy li xam ko fépp yaa ngi dund dund ko sotteeku li nga xam ne mën nga koo mës a am ndéem xamoon ko da nga koo ñàkkoon rek te ñàkk yàllaa joxe boo ko joxee di nga ko xam te dootoo ko màkkeeku waaye li nga xamante ne ko te xamoo li gën a métti ci àdduna moo lay dal mooy li daan ko ku yaroo koy da nga ko yor di ko fawee xam ba mu wadd kenn jël ko te bu la xasee wadd moom doo ko jariñoo ndax lu tax mooy da nga xamul valeur ba mu wadd la ku ko xam for ko ba nga ko faree ko boo leen ci jabootu Serigne Saliou Mbacké moo doon kan Serigne Saliou Mbacké moo ki waxoon ne lu dul diine lislaam aw ma ci yàq defar Serigne Saliou Mbacké dund na ci kaw suuf juróom juróom 92 ans ci gàttal juróom-ñeent fukk at ak ñaar Serigne Saliou dund na ko ci kaw suuf nga xam ne juróom-ñetti at ci zaahir moo tax mu am téeméeri at mbaa xam ngeen keroog Serigne Saliou Mbacké bi bii ñibbi àjjana kurus gi dañ ko nangoo ci loxoom lan lañ teg mooy diggante ak borom mos cee faat xam ñëpp xam na ni Serigne Saliou yéen ñi nekk ak moom ñëpp xam na ni nelaw guddi mosu ko man mën naa ko seede ñii ñëpp mën nañ ko seede xam nañ ni moo nekkoon xalifa sëñ Tuubaa yilif ay daara yoo xamante ni gis ngeen xelkom yéen benn parti bi gën a ndaw ngeen nekk xelkom 49000 hectares waxuma 46000 la waxuma ay 40 waxuma ay nangam nangam 49000 hectares laa wax 9 49000 hectares te ñi fi nekkoon ñëpp si ay néew ak nekkoon ci yenn ay daara yu bëri seen responsable boo ko yor nañ dégg fi may waxee bu baax dafa bëgg amul lenn lu war a mën a tax ñu woyofal suñu digganteeg suñu borom ndax Serigne Saliou laa jox mooy mii mii suñu référence moom mi nga xamante soo teggee sa bët ci Serigne Saliou loo xoolaat tuuti ndax loo xool Serigne woo ko sut ndax nit la muy sudee nit lu muy sudee nit is akramul ibaadi indallahi aksaruhum taqwa bil ittibaahi Sëñ Tuubaa nee na gën a tedd ñun lenn rek ay tax mu gën koo tedd muy mu gën koo ragal yàlla te ragal yàlla nag li ñu yàlla ragal yàlla mooy ragal yàlla gi lay jëmee ci nga jaam kon su ma waxee Serigne soo teggee sa bët ci moom boo tegaat sa bët ku dul moom teg nga sa bët ci lu gën a suufi teg nga sa bët ci lu suufi ndax Serigne Sall daal supérieur yëpp wallaahi yaa ngi jamono ku gën a nekk doogul Serigne Sall amul ci jamono ku gën a jege borom amut koo xamante ni nekkal nga fi yàlla li fi Serigne Sall nekkaloon yàlla nekk xalifatullaahi fil ardi amut xam loo ko xam nañ ma ko wax ñëpp bokk nañ ci ay askan xam ay nit di gëstu waaye ku mel ni Serigne Sall suñu bëggoon a waxtaani jëm moom day yàgg day gudd waaye damay tënk rek nga wax ni dafa yell ñu xam dayo bi ñu war a delloowaat Serigne bi xam ni liggéeyaate Serigne Touba xam ne Serigne Saliou la ñu xam Serigne Saliou la ñu xam ne ku nekk ñu woote nit dana la woo ba nga ñëw tuddal la Serigne Touba nga ñëw mu la boppam Serigne Saliou moo ma yar waxuma ko ngir dara nag daa am lu ma bëgg a wax daa ma ta dégg sëñ bi nekk ba 2007 ñu ne ma doog a xam ci koo xam ne jëlul njabootu mukk teg leen ci njabootu kenn danaa wax ne sama leen yamatul sama doom boobu fii goro ba te damaa fas yéene gore daal ni sax dama leen ko waxee noonu waaye ndax mooy ki daan wax ne boo fekk lu yàlla yaatal ma xadam kon ñëpp a ngi ci biir gone googu sëñ bi danaan def saa bu guddi jotee lu mbooloo bari bari danaan ko kaay ba mu ñëw mu ne ko ana këf mu ne ko mii nii mu ne ko indi mu jox mu dugal bi ci mu liggéey naaj moom sëñ Sadio su fajaree moo ko ne ko këf daa ngi nii moo nekk xalifa général kullu murid bu am soxla ci moom nga ñëw ordonnance yi ëpp ci réew mi ci moom lay ñëw facture bi gën a seet Sénégal sëñ Saliou Mbacke facture bi muy fay état bu doon day fay courant barki Seexul Xadim mën ta fay lu ko jege xool leen taar yi di mu leer 15 daara xam toog kese yeneen daara yi dañu am courant ñoom ay frigo di ay machine à laver di lépp Serigne Saliou daan fay ñun mu doon ko amal njëriñ loolu kon kooku njëriñ bi def moo ko tax a jóg kon nag fa ma tëjee woon fa laay mooy il xam jëmi alwara jooju dañ jéem a comprendre mooy lan jéem dawal suñu xel la ndax yàlla dafa baaxoo ay mbir yàlla suñu ay mbiram da koy juj ndax li tax mu koy juj mooy képp koo xam ne doo xel yàlla waxut ak yow ko wor bu yàlla buy wax day wax ak nit te nit boo wax ndax Mouhamed mii da dim dongab Serigne Saliou Serigne yar ko gërëm ko kon bu yàlla dogalee ñuy dem ba sëriñ bi def ko jëwriñ mu ànd ak yéen nii mu ànd ak yéen jaadu na ma dikk wax ci sama wax ji ma fi wax nag mooy sëriñ bi kat danaan wax naan paaka lu mu ñëw ñëw day wone baqata mbakke mi ngi sëriñ Saliou di reer ba ngay seen ñëm mbooloo ma ñëpp yi maa sey ree mbig moo mu wax léegi moo waral ma ne leen ban ñuy jox sëriñ Saliou kat mel na ni ay baqata la ñu yoroon sëriñ Saliou yar nu def nu ñuy nit yar nu def nu si ñun ngërëmul sëriñ Tubaa boole ñoog sëñ Béthio ñu ànd moom sëñ Béthio nag di gaynde di jàmbaar di borom positif di taalibe sëriñ Saliou kon Mohamed bu teewee fii si seen dal bi man yàllaa dogal ma nuroog sëñ Béthio ma sàmba mënu si dara ma demba mënu si dara man man man man maa ngi doom loolu Serigne Saliou la yan baal ma de bu may wax si Serigne Saliou damay aalu waaye aal gi aal gi aal gi si xam-xam rek laa koy teg ba tax na maa ngi fasanteeg yéen kóllëre ndax jëwriñ kii day sama xarit Mouhamed man mii maa ko bëggal sama bopp kii Serigne Sali woonu boole démb tey doog a dikk Mouhamadan mii di rakkam Serigne Sali woonu boole tey doog a dikk ana Pape ak Pape kon lu yàgg la kon na ngeen xam tool yi ngeen dikk Mouhamed wax nga wax ju am solo nee nga xel kom de boo fi dikkee dangay rekk ndax baatin lépp day baatin dangay xool fi sa bët lépp di ay di ay di naan dafay fay Serigne Saliou dafee def loo xam ne wóor na ma ni ku fi ñëw raw nga. dañoo mas a toog Serigne Saliou nañu sallaahu dey ndax ki Serigne Saliou yar dangay toog Serigne Saliou di wax ak yow. bokkut ak ki naan dégg naa Serigne Saliou nee na nangam dañuy wax lu leer lu ñu mën a duut baaraam. Serigne Saliou nañu sàllaaw de bu ma doon jëlee milliard di ko suul si suuf te bu gerte ñoree maam am sa benn doom képp du tee koy def ngir dama si liggéeyal Serigne Touba Serigne nee na xel kom boo fi ñëwee bakkaar yoo mënoon di am seggal nañ la ko defal dama ne ñi ñëw xel kom tey billahi ak ku fi mën a ñëw ak loo mën a tooñ sunu borom amatoo bàkkaare effacé nañu la tax ma wax nag xam-xam laa waxi yéen dangay set wecc ba boo yeggee neeruk sëriñ Touba ngay duggee Ndakaaru boo nuyu mu taxe loo laal Serigne Touba jàppandil fii lu fi waay sàkku Serigne Touba def ko ak loo mën a bëgg doon boo bëggee doon def ko fii kenn du fi sàkku dara Serigne Touba di la neenal dama ne dama ne Serigne Saliou dañoo mas a toog mu nañu sàllaaw de sama tool yi lu ne la fi waay mën a jële waaye lu ne la fi waay mën a ñàkki ñàkk gi mooy lan mooy nga ñëw topp sa bakkan fu la neex dugg lu la neex wax nit day yaru nit la nga yéene sa bopp yéene ko ñëpp bëggal ñëpp fongal ñëpp koo gis jox ko wàccuwaay dof bi nekk si mbedd mi te nit ñi di ko daw boo ko gisee bëgg ko te Serigne Touba bara Serigne Touba ku bind bind la kon gaañi maa ngi bëgg loolu Mouhamed di santaat Serigne bi si sama teewaay fii sa daara ma bëgg man daa am si lu ma xuus te man du ma xuusantu damay dox ndax loolu Serigne Saliou ko def te la Serigne Saliou ne woon salaahu dara jaaxalu ma ku yàkkamti rek ma jaaxal waxi Serigne Saliou de ñun day duñu fenal Serigne Saliou billahi man la sëñ Béthio ma sëñ Saal ma ne ko Mbàkke mu ne ma xel kom dalay wane fu xel kom jotee xelu nit ñi dañuy dem si yow sëñ Béthio ma ko wax te lim ma wax sañ naa koo wax te duma ko fenal kon Mouhamed daare ji nii ñu dikkee rafet na nii ñu la jàppee rafet na nii ñu la bëggee rafet na te Serigne Touba képp tax gars yi na ngeen ko gën a jàpp na ngeen gën a ànd ak moom ndax moom day leer na ma ne du leen wan lenn lu dul Serigne Saliou du leen joxañ fenn. moom daf tërbiya bu ma defar ba pare sa moom ba gërëm ko sa laahu dey lu ko waay defal man nii nga ko defal man sañ Serigne Saliou dañoo mas a toog mu nañu ndax xam ngeen luy joxe ngërëm ñu ne ko déedéet mbàkke mu ne ngërëm dey mi ngi mel ni ak caxat guy law si àll bi te caxat googee ak lawwaan kenn xamul fa mu yem sàllaaw noo nee la gërëmul Serigne Touba mel Serigne Saliou nee na ngërëm bu tàbbee si yow koo yéene ngërëm mu am ngërëm nee na caxat googee ngërëm bu tàbbee si yow caxat gi ak lawwaan kenn xamul fa mu yem sa law noonu la gërëmul Serigne Touba mel dama ne nañu gën a góorgóorlu te téyewaat daara gi te jàppaat daara te jëfal Serigne Touba ndax kat mooy li am solo maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou yàlla na ngeen si dajeeg ndam maa ngi ñaan si barkeb Cheikh Béthio ngeen yàgg fi te wér maa ngi ñaan si yërmande Serigne Saliou Serigne Touba xëpp leen ay miliyaar te ngeen géejal te yokku te yàgg maa ngi ñaan si yërmande Serigne Saliou di ko ñaan borom xel ko lu ngeen diir yal na ko Serigne Saliou jàmm maa ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou bu déwénee ñu teewaat te kenn bañ a manqué Serigne Touba soppi leen defal leen ay xéewal tuur ay milliards te lu bëgg def ko sa xol yàlla na ko Serigne Saliou def barkeb Cheikh Mbacke. waaw mbooloo mi ñu ngi delloo di siyaaraat bu baax a baax di leen xamal ni comme ni ñu ko njëwoon sànq rek ci suñu kàddu di liggéey bi ñu ànd kook ay nit yoo xamante ni ñun ñëpp danoo nekk bitim réew ku ci mel ni soxna Nafisatu nekk ba France ak jëriñ Abdou Diop di ay jàmbaar yu mag a mag waaw soxna soosu nekk France nekk fa représentant à Saline international di ci def liggéey bu mucc ayib nga xamante ni lépp lu ñuy liggéey dooleem day ñëw xalaatam day ñëw xam-xamam day ñëw moom it ñu ngi koy ñu ngi wax mbooloo mi nañ ko dellu ñaanal bu baax a baax a baax ak Saliou Niang mi nga xamante ni moo nekk Espagne fa sax foofu sax laay jaaree di gërëm ñëpp ñi nga xamante noo bokk membre daayira ñi nga xamante noo nekk bitim réew ku ci nekk Dubaï ku ci nekk Amérique fu mu waay mën a ne te bokk ci Assaalih International jowri nee na ñu ngi lay beral ay kàddu cant ak kàddu ngërëm di ñaan yàlla suñu borom li nga yéene ba tax ngay jëfal Serigne Touba donte nekkul fi ci dëkk bi waaye nag amoo benn benn absence ci sëriñ bi tànqam loo sëriñ bi saa yu bi soxlaa rek bàyyi nga sa yitte yëpp ànd ak daari bi ngir bëgg nga bëgg sëriñ Touba ak sëriñ Saliou ak bëgg koo liggéeyal kon soxna na fi satu ak sëriñ Abdou Diop ak sëriñ Saliou Niang ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax a baax di wane ne liggéey bi maanaam des ñu ci ginnaaw ay jàmbaar lañ ci ñu ngi leen di bàyyi ak sëriñ Touba mi nga xam ne moo am fay mu fayoon ngeen barkib sëriñ Saliou sëriñ Saliou baax taw feexu jam ñaange